tey nak nag euh, ma am mbégte gu mag euh, di dalal ci euh, studio bi ki di Cheikh Gueye ñu gën ko xamé pa bu gatt faire def beaucoup d'expérience dans la ligue pro mais aussi au niveau de la ligue amateur dinañ seq ak mom légui waxtaan ki ci wétam nek à gauche moy euh, coach Gawsu euh, Dramé euh, Gawsu Dramé moom entraîneur CNEPS excellence lui aussi il a beaucoup d'expérience dans le domaine du football defna amateur defna professionnel su ma waxee yooyu di ngeen xam véritablement lan lañ wara mëna gëna waxtané tay ci biir studio bi Kenen ki nga xamné ne mo nek ci biir émission bi may am mbégte gu mak chaque semaine di ànd ak coach Khalifa Fall mon consultant ñuy waxtané mbirum sport ci par Paabu Gàtt lay doré euh, parce que tur boobu moom la ko ñëpp xamé Cheikh Gueye di Paabu Gàtt ma ngi lay nuyu. am mbégte gu mak euh, di la dalal ci émission bi. mais bala ñoo démarrer euh, lan mo indi Paabu Gàtt bi mais yow gàttoo totalement Paabu Gàtt bi suma ben bàjjen moo ma ko tuddee woon bi may don tout tank mhm. voilà xanaa dañ la tuddee sa mam maam lañ la tuddee moo tax mu lay wax Paabu Gàtt mais gàttoo tellement. Hein. <laughs> ma am mbégte di dalal ci biir studio bi aussi Gawsu Dramé coach Gawsu maa ngi lay nuyu. Eh, Fallou maa ngi lay fay di nuyu tout téléspectateur yëpp. Mm. di nuyu tamit tous les sportifs thiessois. Mm. bon espérant aussi que dinañ fi def émission quand bu. Mm. bu xaw a euh, mais tey jii tu n'es pas en équipement tey moom da nga da nga jekk da nga da nga waaw tey dama doon sol équipement di ñëw. bon sérieusement soxna si moom ma solal moom ma ni non li doo ko fa yóbbu solal yére bu normal moo tax ma sol lii. mais xam nga man sportif. tàmmu yéeye waaw tàmmu ma yii waaw. xam nga yéeye. yéeye way bien sûr. <laughs> <laughs> consultant xalifa maa ngi lay nuyu. Ah, euh, di la fay Fallou di la nuyu di nuyu suñu invité yi di nuyu également nos man mi nga xam ne heure bu ne ñu ñun. Hmm. Euh, di. remercier encore Gawsu ba nga xam ne à chaque fois bu ñu ko ne jóge rek mu jóg Pa Abou Gàtt moom xëy na pour c'est une c'est première mais gis nañ ne tey jii xam naa dinañu dinañu gratifier émission bu neex. Mhm. parce que par rapport à son expérience yooyu. yow nag di la gërëm di la sant comme d'habitude. tout à fait mais euh, coach euh, am nañu suñu programme euh, sunu borom aussi am programme mhm. taw bi moom bu fekkoon ne match la moom gañe na gañe na ñëpp moom fi mu nekk nii. à score bu taw depuis euh, deux jours vraiment euh, marqué beaucoup de beaucoup de buts. waaw ah, mais gañawul gañawul. yow baa yow taw bi sonalul. Euh, sonal son sonalu ma parce que permettre na ma quand même mu parce que heureusement que yàlla ji def ko un week hmm. mais problème bi mooy bu mënoon yóbbaale pandémie bi daal. Hmm. man doon na ci baax trop trop. non am nañ ci yaakaar nañu ah? dolli ñaan yi di ñaan vraiment. Euh, ah. taw bi ni mu bëri yëpp na yóbbaale ci ndox mi ci inondation bi na yóbbaale euh, pandémie bi. Covid 19 bi véritablement yàlla def ci. kon dinañ ci baax trop kon dinañ ci baax trop. ah hmm. di di di di di

Euh, pandémie bi dégg nga ñu ngi ñaan yalla genn ko fii euh, ni ma koy faral di waxe depuis quelque temps depuis 6 mois hein, à chaque fois bu ma commencé émission euh, je dis que Covid 19 bi dafa ñëw ranger lo nit ñi seen i sifflet ballon équipement na leen dem leen tok ci kër gi rester chez vous loolu la ñu pandémie bi wax booba légui ñu ngi tok nak nga dundé yow en tant que joueur cette pandémie là. bon pandémie au début nous ñun pas gis nañ comme les nguur restez mhm. chez vous. et mhm. obligé tam ñu toog mhm. mais après par la suite bon au fur et à mesure que continuer doo ko en mm. tant que sportif. Mm. ñun bon on sort pour gën dem football yi affaire yooyu quoi. Mm-hmm. loolu ça nous empêche pas ñu ngi une sélection. Mm-hmm. di au niveau de Thiès di def ay match amicaux ak des copains wala yeneen équipe yi aussi mm-hmm. mais depuis quelque temps arrêté ngeen ko parce que neewaat nañu ne ñëpp arrêté. Oh, période bob arrêté waat après reprendre. après reprendre encore. très bien euh, Cheikh Gueye. Moi, ce tour ñu lay wooyee pa bu gàtt euh, ban équipe nga doon nga doon joué euh, Rendi, ji avant ñuy arrêter Rendi, Walidan FC Walidan FC Walidan en national. en national 1. Euh, mais aussi def nga def nga professionnalisme. parce que jaar nga Pikine si je ne me trompe Guédiawaye Teungueth FC. voilà Toi, hmm. jaar naa fait jaar naa Etix Saloum Pikine. Hmm. Hmm. Guédiawaye Teungueth FC. donc on peut dire que tu as assez d'expérience quand même def nga national 1 def nga ligue pro. def national 1 def as ko ñaari yoon. def avec Teungueth FC après Walidane. après Walidane. Ah. def ligue pro mais euh, première question tu as fait Walidane dem Pikine def as FC Guédiawaye dellu si waat est-ce que le football bi fi y une une différence entre le football amateur et le football professionnel yow en tant que joueur est-ce que sentir nga une ah, différence. si si y a une différence bu ci mhm. parce que pour moi, au niveau professionnel je pense qu'il y a plus de sérieux mhm. que ci amateur bi. Mhm. parce que tey dit joueur bi bu nekkee comme un club amateur euh, je pense que ni respect bi ci wax. wala règlement intérieur yi nga a des club qui sont exigés exiger chez les clubs professionnels Il ak yi nga xam qui sont ci amateur donc pour moi, sérieux avec euh, engagement avec détermination faut les par rapport ce qui qui mais ça c'est au niveau des dirigeants mais le joueur qui est-ce que changement de comportement dina quoi bon ah, aussi perte particulièrement non moi, moi, moi, Moi, man suis pro mais je peux comprendre comme que au niveau des dirigeants mon plus de sérieux parce que nous avons jàpp certainement dañuy fay. dañ la employé donc euh, il faut être sérieux pour pouvoir compétir on peut comprendre cela mais qui euh, amateur aussi euh, au Sénégal amateur tamit ni seen poste hein. est-ce que amateur amateurs, sax fois plus que le professionnel si mën na ne loolu moom parce que gis nañ hmm. comme coach il est yor hmm. national bàyyi équipe bu équipe bu est-ce que ah, moom dafay fay moom moom <laughs> da fa jaar. jaaw ma mais da dégg ne ñoom dañuy fay xaalis. dégg laa ci uh-huh. noonu la fa demee. Waly daan euh, est-ce que yéen doon dañ leen fay. non Waly daan amul amul amul salaire mais am na looy jëflanteeg président bi. Hmm. président bi daal mooy làmm ci posam di jox loolu mom mënul ñàkk quoi jour bu fa ñew hmm. di nga am loy looy ak président mais avant nga wax de président mais avant nga wax de et pendant. ba légui sax. waaye. Ah. Euh, bi pandémie bi ñëwé ñu arrêté ñu arrêté euh, championnat bi arrêté football bi. Mhm. est-ce que amna lo équipe bi jëflanteeg euh, yéen en tant que joueur. waaw loolu mom bon. man mom bi pandémie commencé sax est-ce que sax te waa sax dafa melni ni ca fa gëj waaye. Ah. Uh-huh. Euh, amatu len dara lu ngeen. man mooy loolu maa ngi sama business bop quoi nek sama gaay yi jeex na. très bien euh, dinaa dellu si waat ci yow c'est bon ci ni ma ko introduire ni parce que daf ñuy permettre ñu mëna waxtaan à fond ci situation bi nga xam mom la équipe yi nek ak pandémie bi euh, coach Gaoussou yow équipe professionnelle nga yoré yow fi mu nek ni yaa ngi toog boobu ba léegi question bi ma lay njëkk a laaj mooy ba nga toogee ba léegi est-ce que sa équipe am na lu mu jëflanteeg yow waaw man nag euh, ba ma toogee ba tey. Hmm. Euh, sérieusement euh, sama équipe li mu jëfle woon li mu warloo woon ak man chaque fin du mois. Hmm. ak samay jour mi ngi koy def. Hmm. bon ba pas plus tard que fin du mois bi bi ñu ne nii. man parce que dem, ah vendredi du moins. ñu ngi wax ci état wu joueurs état de salaire. donc ñun on n'a pas ce problème bon depuis lors ñu ngi fay suñuy jour normalement et puis. Euh, amuñu problème boobu daal. yow wóor na leen ñu ngi fay say say joueurs. non bien sûr parce que damay toog. bu ñuy defar état damay toog bu ñu leen di fay damay toog. même ñu am na ci bari ñoo xam ni actuellement ils hmm. seen salaire man maa leen koy maa leen koy envoyé. mais man naa benn information temps yi ñuy wax ne am na équipe yi mais ci équipe yi yiy fay tudd leen. waaw non kii wax loolu il n'est pas bien informé. nit booy wax dara da ngay jël ay information ba mu leer la. Hmm. Euh, parce que dégg naa gars yi di ko kaas man en toute sincérité dégguma ko liiruma ko. Hmm. mais dégg naa ñu di ko wax mais li muy wax leeru ko parce que euh, mënul cité cinq élèves cinq équipe daañu Thiès dans dans le Sénégal. Hmm. ni ñooy fay te CNEPS mënu ci bokk. moom dëkk naag jouru CNEPS na ko laaj ndax CNEPS fay na ko wala fayu ko.

ñu soog di fay. lu ci bari sax damay tok ñuy fay. wala ñu jox ma ma ñenn ñi. très bien euh, consultant euh, tu as bien entendu j'ai dit consultant damay fàttali ne mon mii c'est le directeur c'est le directeur technique du du mais tu n'es pas là en tant que directeur technique tu es là en tant que consultant pour l'émission missions des euh, joueur bi limu wax ak entraîneur bi limu wax yow euh, ngay directeur technique nek dans le football aurait aussi foo xam ne yaa ngi fay yaa ngi fay yaa ngi fay yëngatu ci mbirum football bi pandémie bi mu bi mu daqayee nii ak li nga dégg nii naka nga ko jàngate no euh, comme ni ko je commence d'abord fii ci ci ci ci ci Pape Ougat mhm. bon euh, je dis que une équipe professionnelle et une équipe amateur mënul yem comme ni ko ni mu ko waxee parce que par rapport à la première question c'est c'est tout à fait normal parce que euh, amateur kuy fola professionnel kuy liggéey la

Euh, day fo. Mhm. effectivement. Mhm. série bi do am. Mhm. mais bu déglo li nga wax yow. li nga wax yow. c'est ça même meun na nek amateur ba pare. mais bu ñëwé nga euh, yor nek euh, nekk nu nek nu professionnel. tout à fait parce que je me rappelle bien y a beaucoup de clubs. y a beaucoup de clubs surtout le snaps gis na né mom étant amateur. dañ nekkinu professionnel lañ nekkoon ñoom. Mhm. waaw parce que loolu lu ma dund la lu ma lu ma fekke la. Mhm. parce que dafa meloon ni ñoom dañ doon enfin loolu moo war a nekk sax. Mhm. da ngay préparer sa équipe. pour ëllëg bu nekkee professionnel war a am yenn bañ war a bañ am yenn jafe-jafe yi. par contre nag euh, quand euh, quand à paiement joueur yeeg yooyu. xam professionnel. c'est un professionnel. Mm-hmm. am na ci yoo xam ni bu fekkee da nga bëgg. Mm-hmm. saay boo waxee joueur mu déglu la. Mm-hmm. soo ko joxee heure comme ni nga comme yow ni nga exigeant yi booy coach équipe. soo joxee heure ñu respecté ko. mais mon li nga seq ak ñoom. da nga koy respecté.

Mm. war na ne carrément. Mm. parce que loolu yombul aussi. Mm. taxaw ci télévision ci rajo taxaw ne carrément. damay damay fay yaralu ma kenn dërëm. c' est donné à n' importe quel club hein. club bu nekk ñeme loolu. tout waaw Snaps nag moom ci li ma fa gis. je sais que moi je suis directeur sportif. pas pas directeur technique. waaw directeur sportif. directeur sportif voilà donc am na ci yoo xam ne. différence quoi am na tuuti différence. <laughs> toute tuuti <laughs> mais pas mais loo ci mën a aussi information yi dama koy am. régulièrement mm. tout à fait. et que bu ñu leen di fay damay toog. Mm. donc am na ci yoo xam ne man ko témoigner. c'est ça waaw donc ak nu mu mën di demee. Mm. CNEPS moom yorelul kenn sa d'ailleurs sax. si je me trompe ah, euh, fay na salaire. ba neexale sax ci tabaski parce tabaski bi ñu mais non non ma annoncé xam nga aussi da bind. donc c'est ça donc te club bi sax mm. club mm. les clubs les les plus grandes équipes. Mm.

yombul aussi pour les clubs il faut il faut il faut aussi reconnaître même bu fekkee ne am équipe qui xam ne fayuñu il faut reconnaître aussi que c'est par rapport aux difficultés. loolu dëgg la loolu dëgg la parce que effectivement parce que aussi xam nga euh, contrat de prestataire de service. Mhm.

même ci li mu doon yaakaar as tuut léeg-léeg match am. voilà am fa tuuti recette. mais justement Khalifa ci lolu ci lolu ci lolu la ñëpp war di réfléchir nak ci football hmm. suñu football footballu Sénégal fim mu nekk rawatina ci li nga xam dañ ko tuddee euh, football professionnel. Euh, wax nga ko légui euh, prestataire de service. te quelquefois il faut payer après service rendu. da ngay liggéey ba paré ñu dog la fay. kenn du la fay te liggéeyaguloo. effectivement ñu né ay professionnels ñu recruter des joueurs euh match amul. Tout ci lu tuuti li nga xam ci la équipe am très souvent c'est par rapport aux aux recettes match am na wala dirigeants yi cotiser euh, euh, génn xaalis pour mun fay pour mun fay les joueurs maintenant le problème moi, ci joueur yi laay wax ma dogu de dellu si waat ci yow ci Babou Ghat moom ci club professionnel diar amateur mais ba ngay dem ci club professionnel soo ñëwee di signer contrat ak le club professionnel lan ngeen di signer très souvent yow lan ngay waxtaan ak ñoom parce que loolu c'est un vrai problème. waxtaan ak ñom ci lan. ah yow ba waaw ci contrat bi nan ngeen koy nan ngeen koy Un oh, contrat comme contrat yi football rek ah dañuy ñëw tek seeni contrat. Il mhm. y a des règlements à l'intérieur. waaw donc nga waxtaan ak ñoom. Mhm. suñ la soxlawé donc après nga signé. waaw non suñ la soxlayé ngay waxtaan ak <laughs> c'est ça le xam nga loolu c'est un c'est un problème. parce que nit ki lay liggéeyloo. Mhm. n'a la kay footballal ma dama lay liggéeyloo. man boo footballee ma fay la. Ah. mais am na nu ngeen di waxtaanee pour nga liggéeyal ko. waaw ah, mais loolu yëpp mi ngi ci règlement intérieur xam nga tey bu la bi ngeen jël le temps lire règlement intérieur bi xam li ci nekk lu ma hmm. est-ce que mun nañu am tuuti expérience ci euh, pas nga wax ma li ngeen daan li ngay fayeeku <laughs> non mun munuma dévoiler sa sa salaire mais ci ni ngeen koy négocier est-ce que boo ñëwee da nga naan euh, équipe bi. Euh, chaque mois da nga may fay nangam wala moom mu ne la bon chaque mois dinaa la fay nangam boo gañee match naka ngeen koy négocier très souvent. non pour salaire président bi day ko proposer la. proposer la. xool si ça t'arrange. Hmm. nga si ça t'arrange pas aussi nga xool leneen. mais ci proposition bi danaa la chaque mois dama lay fay nangam. amul ma dem te ñëw. durant toute la saison. toute la saison. léegi boo footballul nag boo en cours de route est-ce que dinañ la fay. Ah, loolu aussi a xam la fay. Euh, bu ak man ci ci mbir parce que dafa am lu bëgg ñu waxtaan. am exemple am club yoo xam waaw tey boo gaañoo dinañ la fay. waaw la la fay. la mhm. comme ni mu waree. Mhm. ba nga reprendre y a des clubs mais club expérience ci club yi est-ce que yooyu bokkoon na ci contrat yi nga signé

est-ce que lima ma laaj euh, li pas laaj paa bu gàtt ces joueurs bu ñëwee di ngeen waxtané loolu moy yow dama le recruter pour pour la saison parce que boo ne ma joueurs yi euh, yaa ngi leen di fay boobu légui d'ailleurs ça se comprend ça ça doit couler de source mais bu compétition amone su compétition amone joueur beau jouer lool. est-ce que di ngeen ko fay mensuellement. si dañ koy fay mais nak joueur bi performant. Hmm mënul bokko mo profit ak joueur bi nga xamni am am amul performance parce que luñ ci mëna a wax. ñun on a en ligue professionnelle. dañuy chercher performance. parce que bu fekke amul amul amul différence. ci ki ki nga xamni day compétir ak ki nga xamni compétirul. bon toujours joueur bi sa yu duggé de jouer rek mu jeex mu dem yonam mhm. mais su fekkee ni amna motivation au moins. Mhm. Euh, dina gën gor góorgóorlu pour di bokku mhm. ci équipe titulaire bi. c'est vrai que ni wax ak yow salaire. bu nangam lañ lay fay mais su fekkee ni aussi tu n'es pas performant il faut que mu répercute ce sa salaire mm-hmm. parce que tamit ba ñu lay jël mm-hmm. pour nga pour nga performant la woon mm-hmm. aussi dina nekk source de motivation pour le joueur qui se bat pour que au moins il mën a toujours dina répercuter ci sa salaire cela veut dire que donc il y a deux grilles de salaire il y a deux grilles performant dañ la fay mais bien sûr si tu n'es pas performant bien sûr euh, salaire bi day bien sûr bien sûr nga wax ko joueur bi mu leer bien sûr parce que aussi mënoo jël joueur bu ko boo am ak tànkam soo ko dugalee mu def li ko neex bu équipe nga teg ko fële mu toog. Hmm. bon bu match bu weer dee mu ñëw fayu. Hmm. bon donc nit ki tamit ci liguey liguey hmm. il faut ci liguey liguey mu am rentabilité. Hmm. bon rentabilité bobu tamit yow il faut nga yëg ko. Hmm. yow mi koy indi mais mono di football nu mu la nexé bu weer rek ñu fay la. mais mais tu sais aussi que euh, football quelquefois c'est aléatoire mun nga dugg ben match rek. am blessure bu la écarté du terrain à partir de ce moment. non blessure bokul ak performance bi non non blessure bi ki dafa gañu ci suñu service non seulement dañ ko fay. mais dañ koy faj.

Euh, loolu daf may dugal après su mu ñëwaatee ngeen gis dinañ wax ci syndicat entraîneurs yi wax ci syndicat syndicat joueurs yi mais ñii la ñu wax am na solo euh, consultant parce que en fait euh, ki nga xam ne da nga koy liggéey loo aussi performance da nga ko war a fay kaay liggéeyal moom fay la si tu n'es pas performant dañ la war a relégué parce que tamit kiy fay moom dafa bëgg performance. moo ko tax a jóg. waaw loolu loolu loolu xel mun na ko mun na mun na ko. est-ce que joueurs yi dinañu bàyyi seen xel ci xam nga professionnel. Eh, gis nga joueurs yi il faut nga xam leen d'abord pour xam exactement ñoom naka la ñuy signer contrat yi xëy na peut-être pousse nga Pape Gàtt mu mu kii mais gis nga euh, Fallou je te dis une chose gis nga joueur dina ñëw ci club fan club rek ko indi. dëgg la boo ko jox da nga ko jox rek mu signé. Mhm. soo ko jox rek signé na. Mhm. parce que moom fii la doon rêvé dugg. Mhm. gis koo xam ne day ñëw xaalis lay wut. su ñëwee xaalis lay wax yow.

différence. moo eggul niveau boo xam ni. Euh, jour bi day bañ li léegi bii nangu ko. Mm-hmm. bu koy bañ léegi beneen bi ñëw léegi di ko nangu. Mm-hmm. te boo xoolee seen différence ñoom ñaar. Mm-hmm. presque barewul amul différence bu différence donc kon kii commencé na la indi ay problème te commencé koo mhm. kii mom mi ngi la ko yombal mhm. mais yow nga ne ko yombal ñibi mais mais gis li ngay wax ni bay nga ko ni li ngay wax ni c'est mhm. tellement important parce que prévoir na waxtaan mel noonu ci fin wu émission bi quand on va parler de transfert euh, équipe au niveau professionnalisme équipe bi joueur bi war na jógee ci tel club Barcelone dem ci beneen équipe on va parler un peu de ça d'accord maintenant il euh, y a une différence am na luy différencier quand même

comprendre mais après après ce qui différencie surtout surtout. Mm. Euh, les joueurs ci mm. c'est les primes de match. Mm. parce que souvent euh, euh, les dirigeants aussi des jouer des jouer ci tu te dis que est bon ils ont tous le même salaire. mais yow dirigeant joueur plus performant nga ko à côté mais euh, source de motivation partout dans même dans le professionnel dans le haut niveau sax day am bi moy mais man maa jouer yow jeu woo man man gagner ma gagné maa am prime yow prime. déjà j'ai une prime de de vingt francs ou de 25000 francs. Euh, match gagné mm. man may jouer tégalé ñetti match diko gagner wala ñetti match. mais j'ai tout de suite 100000 francs yow. yow lo dara parce que. dara parce que yow salaire rek ngay kii. léegi tu seras obligé de de se tuer pour être performant. Mm. yooyu yooyu. yooyu yi ak euh, dirigeant de qui jouer

y a une concurrence bu ciy am foofu noonu ci équipe bi boo performant dañ lay tegee nele indi sa morom donc boo fa nekkee pour nga mën a sauver place boobu noonu faw nga xaaree di rey sa bopp chaque jour que jëfe en plus prime yooyu ñu wax moo lay mën a motiver parce que sa salaire doy la dara am na loo xam boo ko defee rek boo doonee soutien de famille autre chose comme ça sa salaire doy la dara boo ko utiliser rek mooy loolu sa salaire doy la dara mooy kon profession parce que professionnalisme différence su professionnalisme ak amateur mooy dañ lay fay loo xam ne au moins dina la amal njëriñ mais yow li nga wax dafa professionnalisme sénégalais bi mënul mënul yenn comme Sénégal. donc mais tey jii ku ci nekk ak la ngay fayeeku. Hmm. salaire temps am na xam salaire temps. Hmm. mais tey ki am salaire temps. Hmm. ci effectif de performance bi. day jéem a pour di jéem prime de match ko foofu lu ko fatal quoi salaire donc

donc euh, moi, amon nakalat bo pour les joueurs. da daan di ci ci wax chaque instant heure buñu défé defee préparer match wala autre chose comme ça da accentuer. accentué hmm. Ah. Jamil en tant que dirigeant. président président mu la nan yéen joueurs yi war ngeen am syndicat. moñu ka daan wax. mais euh, Khalifa. ah mais Jamil mais Jamil Fallou. non wala may parce que lolu c'est. non c'est important. oui xam nga ils ont les mêmes ils ont les mêmes idées parce que c'est des professionnels ce sont les professionnels des professionnels. Hmm. Pourquoi je dis que ce sont les professionnels des professionnels mm. C'est-à-dire que Djamil, Youssou Dabo, mm. euh, Mbaye, le, le, fils Abokar Mbaye, non, non, ça fils. mais nous, mm. c'est des gens qui ont grandi en France, dans les clubs français, des professionnels. Qui Mbaye euh, Bokar non, non, Bokar Mbaye. Bokar, son fils L'entraîneur là qui, qui était à qui, Génération. Demba Mbaye, voilà. Demba, Youssou Dabo, Djamil,

mais c'est une nécessité. Ils ne voudront pas accepter hmm. en général. Mais est-ce que ce pas trop tard C'est pas trop tôt. Parce que un problème, pour la création de syndicats. Je vais te donner une anecdote. C'est-à-dire que ce que c'est en général, hmm. il s'est rendu compte que il est tout le temps interpellé par ci, interpellé par là, yoyu, hmm. te ñom xamuñu lolu parce que dans l'anecdote une anecdote c'était en Tunisie. Au niveau du rail, on avait un joueur, un jeune joueur bu demoon Tunisie. par le biais de Fall Assurance. gos bi dem Tunisie. dem fa bon sous forme de test. mais c'était un bon gosse il jouait bien. mais le président ñëw ci entraînement bi. entraînement bi tas. rek mu interpellé mu waaxoo. daal di jubal ci président bi. di ko ñaan xaalis. ok ci guddi gi la ñibbisi. ci guddi googu. Uh-huh. la ñibbisi lañ téléphoné Fall ne ko gos bi dina jël vol dina ñibbisi parce que président du parce que comme il l'a dit président donc il tout à fait comme ça il est revenu très bien c'est une nécessité hein. la parce que euh, profession Amérique ou syndicat syndicat c'est pour l'intérêt de celui que, qui, qui travaille mhm. euh, comme nous ko ñep di amé syndicat euh, entraîneurs yi aussi créer nañu seen syndicat c'est normal parce que ñom aussi dañuy liggéey pour ñu fay leen euh, Gawsu dégg nga syndicat entraîneurs yow adhéré nga ci wala adhéré guloo non adhéré guma ci ci. Mhm. adhéré gu guma ci parce que euh, tamit magum jëm ci lu muy dugg da koy leer. Mhm. moo am na noo xam ni man non lay doxé doxee. mais nak n'empêche j'ai interpellé mes dirigeants. pour sama adhésion. Mm. j'ai même interpellé ki nga xam ne moo football entraîneur yi mm. au niveau de Thiès. Mm. ci cas pour sama adhésion. am na lu ñu ma wax. aussi maa koy baye xel. di xaar di xol encore. parce que tamit man du ma tëb ci luma ma xamul. parce que biñi dajé daje fekkewu ma la tax ñu lal syndicat bi xaw ma ko. bon je suis un entraîneur. Euh, yoré équipe bi gën a kawe. ci footballu Thiès. waru ñuy def un mouvement syndical xaw pour les entraîneurs man nekk Thiès du ci bokk mais nan laa ciy bokkee d'abord il faut mu leer ci sama bok lolo tax vraiment ñi nga xam ne ñoo ci football bi fi ñom ñep interpeller na len pour laaj len lan moy sen xalaat ak sen gis-gis ci man ma adhéré c'est-à-dire da nga bëgg wax moy bañuy ñuy taxawal syndicat bi euh yow en tant qu'entraîneur euh, équipe pro on t'a pas interpellé non on m'a pas interpellé ci panel bi la koy lire ba bu ñu xëy teg bureau. bon ni diw diw ak diw diw la ñu la jël comme président wala léeg-léeg ñoom ñu kii. bon mais n'empêche euh, corps bi mënuñu ma ci génne. mais lu mu mën a doon mooy d'ailleurs lolo moo tax su may jënd carte. loolooy tax ma di ko jënd parce que ci corps bi laa bokk mënuñu ma ci génne. mais la tax vraiment ñi di ko def xaw ma ko. te loolu tamit ba la ma ciy dugg il faut mu leer ci sama bopp. c'est ça cause pour laquelle j'ai vraiment fait des investigations.

Euh, création euh, syndicat des entraîneurs am na xamné rafetlu nañu ko rafetlu nañ ko mais euh, li ci nek rek mooy suñu professionnalisme bii mo nek nekkagul pour man lo xamné ne taxaw na damay ragal su fekkee ku nek joué rôle bi nga xamné mom nga wara jouer mu créer ni plus de problème que limu wara résoudre. parce que football bi nga xam ne ñun dañ ne professionnalisme la il y a des pays qui ont fait des années et des années et des années avant ñu yegg si ci loolu. Mm-hmm est-ce que nous woon gën a consolider li nga xam ne moom amagum ba pour ñu bâtir quelque chose de solide que créer des choses yoo xam peut-être ça peut nous créer d'autres problèmes inattendus. L'État n'a pas encore reconnu le professionnalisme au Sénégal léegi looy anticiper di syndicat État bi reconnaître le football professionnel au niveau national donc syndicat mënugul am foofu benn. ñaari bo sigi nga def wax legui lu am importance fallu na la yow ya ko wax sax ya ko ya, poser question bi en tant que entraîneur d'une équipe professionnelle de Ligue 1 mm. mais ñoñu bu ñu waré dem bay créer syndicat mais de ces entraîneurs de démarche bi war na mëna pour donner ni ñu ko défé ni au départ. war nañu mëna a convoquer tous les entraîneurs de Ligue 1 et de Ligue 2. maanaam commencer. comme comme ñoom ñooy comme on dit. mais waxtaan ci ñom déglu mais je crois que dafa melni dafa melni ay problème ay règlement de compte ay affaire parce que tu vois même au niveau des joueurs euh, euh, le le secrétaire général du syndicat des joueurs. le secrétaire général du syndicat des joueurs mon bi football actuellement c'est ce qui joue mosuñu ko gis xoolal différence d'âge boobu ñoom xamuñu ko les joueurs actuels ne connaissent pas le secrétaire général euh, euh, du syndicat des joueurs parce que dans un leen là, on jour mais donc xam nga aussi. c'est pas cohérent. Je ne parce qu'il n'est pas dans le football pro actuellement. <laughs> mais mais mais ah, il n'est pas dans le football pro le syndicat c'est le syndicat des joueurs professionnels. professionnels voilà effectivement. maintenant comme li mot, waxoon xam euh, vous parlez de syndicat des joueurs professionnels alors que le président ak c'est des gens qui ont qui ont raccroché depuis longtemps. très longtemps depuis très longtemps. on peut les considérer comme des, comme des conseils. Mais c'est des vétérans. Parce qu'ils peuvent être le syndicat des, des, des, des anciennes gloires, peut-être. Mais pas un syndicat des joueurs professionnels. Mm. joueurs professionnels, ils ne savent pas xamuma différence ont eh, eh, eh, à la limite ça moi je me dis que ne comme tous ces joueurs qui sont au Sénégal fii professionnel. Par contre, amu ci kenn ku ci am niveau wara a nek le secrétaire général. mais quelquefois il y a y a y a des choix yo xamné ne nañu japp né c'est des choix pertinents parce que euh, doyen Yatma Diop euh, makoy makoy nuyu euh ci benn waxtaan bu ma C'est lui le président d'honneur du syndicat des, okay. des, des, des, joueurs professionnels. Président et il le considère comme un conseiller. Ça peut être une bonne chose. Parce très que bon. lui, il peut donner des conseils. C'est très quand bon. Quand diriger euh, ou bien être membre actif, c'est un problème c'est mon sentiment. oui effectivement est-ce que quelque part il y a un diable pour l'ennemi euh, il était plus pertinent peut-être euh, à mon avis hein, ça c'est mon avis personnel. Euh, de créer une amicale ou une association en attendant. d'y voir plus clair de mm-hmm. mm-hmm. défendre des intérêts que de dire syndicat parce que le mot man ne pas pour dès le départ. non en tout cas d'abord le monde que a fustiger pourquoi syndicat des joueurs professionnels bon je crois que nous avons def rek syndicat des joueurs du Sénégal pourquoi parce que. ah mais quand tu vas mettre des des des amateurs et puis. ne vas pas être amateur ba pare mettre dans un syndicat c'est-à-dire je fekkee ni dañuy xeex. ak ak yelleefu joueur bi. Hmm. Euh, joueur yëpp un maintenant moi, am niveau. Hmm par exemple si tu es professionnel si tu as un problème nous traitons ñu en tant que professionnel. Mm-hmm. yow tu es amateur nous traitons en tant qu'amateurs. Mm-hmm. parce que ce tax je wax dire, c'est que nous ne ci pas amateurs ah, amateur cette année ci. Mm-hmm. wala même si phase aller bi. mercato bi ñëw mu professionnel mais mais mais maintenant il y na indi problème. Mhm. alors que nag su que dañu def seen. je comprends ton souci dans la même année. voilà c'est ça dans la même année mun nga amateur ba pare nekk professionnel. c'est ça effectivement. je comprends je comprends ton souci. dafa bari sax loolu. Hmm. dafa bari eh, en général mes cartes su hmm. souvent beaucoup de joueurs amateurs dañuy nekk professionnel. Hmm. et il y a même des joueurs professionnels yoo xam ne mais professionnel automatiquement nga nga mun ah. ci syndicat. Eh, il eh, y a il y a des joueurs professionnels aussi qui qui deviennent amateurs. parce que man euh, c'est vice versa. ko defoon syndicat des joueurs rek. d'accord moom moo doon moo doon gën a neex dégg. ensuite mais loolu nag waroon nañu am euh, kenn koo xam ne bokk na ci syndicat bi ak ni ñu ko tëggee parce que li ngeen soulevé nii. je l'avais perdu de vue à part de ce moment comment défendre l'intérêt euh, du joueur bi nga xam ne dafa nekkoon professionnel mercato bi automatiquement euh, mu dem amateur comment défendre son intérêt peut-être ci ci contrat Pour lay doon moo démarche bi démarche bi moo je démarche parce que démarche genre démarche sur règlement de compte là. c'est-à-dire que c'est mon point de vue quoi c'est mon sentiment <laughs> mm. parce que da ngay da ngay genre genre démarche fi ñu ko defee ci plateforme bi. ak fi ñu syndicat bi. diganté bobu dafa gaaw ko dafa gaaw na gaaw bo xamni da ngay da ngay. lan lañ ñii depuis temps Jamil mu ngi leen koy proposer ça fait plus de dix ans depuis 2015. mais pour pour vous dire rek. war na mën war nañ ko mën togat togat togat togat toggaat parce que bo xolé même même même euh, pour le syndicat. des des des des des entraîneurs. je je situe bien euh, Lamine. postulé woon na. avant. Hmm. mais bi ko boobu rëccee dafa dem ci bu joueur yi. comme quoi man damay war a nekk parce que lii moom il faut ma kii parce que j'ai vu réactions sax d'ailleurs mais loolu yëpp amul ci solo l'essentiel que war na a am. dans mesure où. évidemment ça ça peut être une bonne chose mais daal nañu xam nuñ koy. mais mesure où. que nous nous koy koy mûrir. di mûrir di pousser à la fédération. nous mm. pousser à l'État. état état reconnaître le. football professionnel que yow mûriroon nga ko nga génne ko tek là adhérer. mais là, loolu lay wax ne bon peut être mënoon nañu dem parce que dafa am yenn étape yo xamné ne wax très souvent soo tebee rek yegg fa. c'est plus facile de <laughs> retourner à la case de départ que de maintenir la chose. Alors que soit étape par étape, il est facile de progresser. Mhm. de de de de progresser sur les marches. bon man même sur le faux mu am ay antenne régionale mhm. yoo xam peut-être dañuy dañuy wàccee. Mhm. li ñu bëgg a def. ak ni ko bëgg organiser tënk ko tëral ko. mais do, do, do, do, à travers panel bi. par exemple ngay lancer ay idées ñii di kii ma j'ai l'impression que ñi ci gënoon a réagir ci panel bi. ñooñu ñoo bokk ci bureau bi. bon te football bi dama def ni bon du football ma samba wala ma demba mm. bon xamna ni ñu bare ngi ci mm. ñun expérience biñ ci am amuñu ko ci mm. parce que ñun ba ñuy commencer entraîner bobu xeyna sax ñom ñi ngi fu jàng wala ñi ngi football mais il n'est pas dit que da ngay ñëw rek tu prends un groupe kini yoyu au lieu ngay defar syndicat mais da ngay alors euh, je je ne pense pas que euh, mm-hmm. parce que comme man les les aboutissants mm-hmm. bon vraiment quoi mais parce que je suis un entraîneur mm-hmm. je suis tenu d'avoir une carte parce que lolo le entraîneur mais il faut aussi ci limay may dugg lu mu doon parce que am na loo xam ne même su ma ci duggoon tam. suñ ma ko bëggee def loolu du ma ko def. mais euh, bala may delluwaat ci ci paa bu gàtt euh, yéen entraîneurs yi euh, seen mise à niveau yi parce que les choses vont très vite hein léeg-léeg damay dégg benn mise à niveau wala benn benn stage de perfection nga toogaat ay at doo ko kañ ngeen gëj a dégg ñu war hmm. def mise à niveau wala waaw yàgg na mais li ma xam mooy actuellement gars yi lancé nañu comment dirais-je les les les les passations de de grade. Hmm bon gaa ngi inscrit parce que normalement. pour ñu war def jóge licence B dem licence dem licence A bon amoon na un dépôt bu nekkoon ñu arrêté ko mais dépôt bi il paraît relancé wat nañ ko. mais yooyu c'est des c'est des stages de de de de montée grade. mais moi je veux parler des mise à niveau yi mise à niveau xam nga entraîneur war nañu mën a. mais man man lima ma mise à niveau su fateliko parce que barki dem rek maa ngi xoolaat suma suma suma ki buñu ñu buñu jambar bobu on l'avait fait on était en national 2 je crois que c'était en 2018 2018 national 1 national 2 non ah non pas national je veux dire ah, en Ligue 2 Ligue 2 voilà, Ligue 2 on était en Ligue 2 c'est ça en 2018 parce que je me rappelle bi mini football ak c'est l'année 2018 2019 man ci mise à nouveau, bi dem pour. année 2018 2019. 2018 2019. bon bon, après non après euh, bon même pour le syndicat. amical wala association war nañu pour que véritablement. non mais lolo à. mais mais mais pour mais moi moi oui euh, erreur yi ñu def ni ci ci ci création syndicat bi. bu yooyu woon. def erreur parce que rencontre bi tout le temps mi ngi oui waaw très important. tout à fait. je euh, voudrais même poser une la question. parce que euh, admettons par exemple admettons. <laughs> moi je suis au Casa hmm? je suis le président du Casa. j'ai mon entraîneur. j'ai mes joueurs. Mm-hmm. je paye mes joueurs normalement. je paye mon entraîneur normalement. Or que toi, tu es à, à, à l'âge douane, par exemple, hein? ton entraîneur est renvoyé. Est-ce que ce serait vraiment logique de dire au, euh, euh, euh, cas pour arrêter le championnat parce que... Tout à fait. non, je, je, comprends. Moi, problème syndicat. Problème syndicat, C'est un problème parce que qui est mon problème, laaj léegi mu wax ko te qui équipe professionnelle. c'est une mm-hmm. équipe qui wax ngeen di traité avec ay joueurs. Mm-hmm. quelquefois vous n'avez pas le fond. Mm-hmm. xaalis bi ngeen mm-hmm. war a am pour sax euh, dépenser amu leen ko mais recette yi ngeen am c'est par rapport euh, aux recettes wala fois président bi mooy génn ci poosam jox mm-hmm. mais président bi bu fekkee ne moom mooy génn ci poosam joxe euh, amul benn soutien mënul fay ay joueur am moom day waxtaan ci njëkk rek en ah, soutien da lay wax mais saa yi man maa doon fay mënatumaa fay est-ce que loolu loolu problème moo tax ma ne amical waxtaan bu waaw léegi nag loolu bu amee problème léegi légui syndicat bi ñëw non non. am na ku ma wax bu na mais bu di professionnel très bien <laughs> c'est mon problème bëgg vraiment ñu ñu wax carrément parce que euh, ki ngay dafa am foo koy porter plainte koy dem non il dire tout de suite à à weekend bi bul bul yóbbu équipe ah parce que kee dañ ko dàq fële bon xalifa yow bul yóbbu sa équipe dañoo dàq fee. mais Gawsi bi bu yóbbul équipe am Senefs est-ce que duñ ko sanctionné. équipe bi Senefs sanctionné wu. da lay dàq gannaaw mu sanctionné. mooy fay. waaw parce que Senefs lay fay voilà. dàq nañ ko fay ñu ko toog na dàq nañ ko wala. waaw bon peut-être ñun. ñun la yoo toogal te yow ñu ngi lay fay. lii nekk ci biir mais li ma waxoon léegi day dem. mbooloo da la wax dafa ne syndicat bi dafa teel peut-être il faut ñu ñu creuser ba ci biir Mm. gis nga ay nit dara dañ koy il faut ça demande du temps. du mm-hmm. temps mais j'ai l'impression que bon gars yi dañu dem ak fugg. que mm-hmm. te loolu baaxul du. bëgg-bëgg la nag parce que tamit euh, tamit il faut reconnaître aussi que. Euh, quelquefois il y a des il y a des dirigeants ou bien des des entraîneurs yoo xam ne dañuy def abus de abus de pouvoir hein recruter joueur bi pas pa bu gàtt nga nga football tuuti après tu n'es plus performant fayetuma la a naa la un an moo tax ca waxtaanu contrat. mais Fallou solo man foofu dinaa la def benn incursion gis nga man magum jëmm. yow nga yore nekk président wu club. mu ñu toog ñu waxtaan man ak yow. nga wax ma doo xam ni man ñor doy na ma. defloo ko. mais ñaar ak ñett duñu dégg quoi. Uh-huh. damay dem toog. Mm-hmm. xam ni man kenn tooñu ma maa tooñ sama bopp parce que. Mm-hmm. maa dem wax ak waa. mais boobu ñàkk nga ba pare parce que nga gis nga dama lay wax ñaari affaire gis nga ñàkk nekk ci daway yem du ma am dara yoo xam nga li ma lay wax. da ngay sonal sa bopp nit ñi dégg la. syndicat amical ci bokk yam gaay yi la jox dara te doo leen mën a. ah non Fallou wax na ko léegi Fallou wax na ko léegi. man man man man boo yoroo ko boo ko yorul. boo ko yorul c'est-à-dire su fekkee ne am na loo xam ne dañ koy conseil parce que nag ñun ñi ñëpp on n'est pas on n'a pas. Euh, un niveau zéro, hein, am une tout vécu quand même, en tant que mm. joueur, en tant qu'entraîneur. C'est-à-dire, le, le, le, meilleur conseil qu'il faut donner aux joueurs,

waaw sama paa bu gàtt mi dama ko soxla. mais c'est ça c'est ce que je veux dire dama koy wax loo xam ne ko def. voilà loolu moo nekkul normal que paa ma ko mënee jur tam sama nawla la. c'est ça am na loo xam warul tax. ma di ko wax te duma ko mën te loolu nag moo mais loolu moo fi bari sax. loolu moo bari ci ci footballu Sénégal bëgg nga footballal ma. ma ne ñaata nga ma nga ne ma non dinaa la jox chaque mois dinaa la jox 2000 euh, est-ce que tu vois dinaa la jox chaque mois 2000 ma ne la waaw d'accord mais man saa waay benn at laay signé ak yow chaque mois nag ma jox sama 2000. bu ma demee hmm. ba ci digg bi mois bi jot na joxoo ma sama 2000 damay dem toog ñu signé ko mu am benn affaire ci laxasu. renouvelable. <laughs> dafa am lu ci laxasu. vous n'allez pas euh, ngeen bàyyi xel ne joueur bi. Ah. su ñëwee comme li si wax effectivement am te pour la wax ak nit ki wax bu leer. Hmm. mais gis nga boo nga waxee la mu waaj ne la mënuma ko. waaw boobu ko mais. koko gëna gëna koko gëna télé wa d'accord nga dem ma ñew mais le fait que yow nga mën li ngay def rek non xam nga par le moins nga dem ci équipe amateur non joueur bi non non joueur bi joueur bi bon mo bëgg football ben bëgg na xaliss mais bëgg na football aussi oui tay tam aussi club bu mi dem n'importe quel club la dem mais problème bi fi mu nekk moy yow fa nga bëgg tam ko ñoñu duñu wax ko deug par exemple admettons comme ni ko gëss wax effectivement nga mais bo fa joggé amo fenn fo dem da nga fi jógee doo am feneen foo dem. parce que beneen club bu beneen club waa ji dul wax dëgg club boo ko fi tànnee amul. xam nga hein? par contre li affaire bi mooy sincèrement. tant que football professionnel bii. état ñëwul di ko subventionné. mais parce que parce que loolu rek moo mën a nekk mu leer leen xam nga xam nga bi ñuy wax naan ay joueurs équipe yi am na ñu fay am ñu fayul am na ñoo xam dañ ne dañu war a fay par force. xamul fi ñu ko teg parce que fédération dafa joxe lu ko mën. fédération jox na club yëpp lu mën lu mën a lu mën a problème bi. loolu sax man dama ciy kontaan. waaw dama ciy rafetlu liggéey bi nga xam ne fédération. fédération def na ko effectivement su ma la joxee dinaa xool xaalis bi. fan koy dugal très bien léegi nag pour nga dimbale jox la nga téye ko. Hmm. donc fédération am na droit xool ko. Hmm. léegi nag bu état ñëwee daan ne club bu nekk je donne à chaque club 100 millions de francs et aller chercher les ressources additionnelles sur ces 100 millions. Mm. mais benn année bii loolu comme en Côte d'Ivoire nous avons def année bi ci 50 millions la joxe et j'arrête. Mm. xoolal loolu. en tout cas li nga. xam ne léegi léegi nag bu état mais la là. kenn ñemewul taxaw di wax kenn di def mais da ngay bëgg a gagné. Mm. bëgg bëgg bi mais il loo a mais mais mais xaaral ma dem ci Paa bu gàtt ci li nga wax ma rappelé rek euh, euh, fédération mu ngi a encore les clubs les clubs pro euh, fédération de fait 15 millions ah pour subventionner les ligues de de leen jox. dix millions non FIFA avec ak état. waaw mais fédération jox na pare. waaw mais fédération moo koy appuyé day jot loolu fonds yi len jox pour mu joxaat équipe yi. Ah, ah, Covid 19 damay leeral rek quoi. damay damay leen joxaat euh yokal ko li nga xamné joxone na len ba pare. len leen li parce que euh fonds yoy FIFA ak CAF ñoo appuyer les fédérations. ñoo appuyer ko nak yobul ko jox ko. club jox ko les clubs ses ah. membres donc euh, euh, dinañ leen jox loo dañu a joueurs euh, certainement entraîneurs yi nga mais comme président pour président <laughs> président la ne. avant nga may jox man tu vas pas

lu tax nga dem nga ngay football football amateur fi nga nekk nii ko mënatul wala lan. non <laughs> bon comme bi may jógee. parce que su ma gisee cruise bi nga jaar yëpp dem Pikine dem Géejawaay dem Tëngëj FC euh, waali daan nga démarré woon nga dellu si football euh, national 1 euh, équipe yi dañ la bëggatul walla non man maa bëggoon ñibbisiwaat Thiès quoi. Ah. parce def naa ci àll bi presque ay huit ans. Mm-hmm. ou neuf ans. Mm-hmm. donc je me suis dit ni naa ñibbisiwaat toog Thiès. Mm-hmm. waaw par la suite te Tëngéej la la jeexee donc après ma ñëw toog Thiès. ñu ñëw toog Thiès ñëwee toog Thiès nag donc mooy loolu. amoon naa contact surtout ay amitié affaire yooyu mais dama ni comme waal daan foofu laa defee suma lépp. Mhm. naa dem toog affaire kóllare nga dawal ak ñoom mais da nga nekkagul foo war a bàyyee football euh, tu n'es pas encore vieux est-ce que au Sénégal jàpp leen ne. Euh, loolu aussi il faut que c'est un autre débat. Hein. c'est un débat kañ euh, c'est un autre débat nit ñi dañu jàpp ne à vingt trois ans vingt cinq ans vingt six ans vraiment waa ji màgget na. Alors qu'il y a des gens qui jouent jusqu'à 30 ans. Ah, ouais. 30 et quelques. les messieurs ont combien, les messieurs ont d'années Mais moi, personnellement, hmm. je ne du question ñëtt, question de la ak ñak mën. Même ding ko mën. Mais duma ko jéxal.

moi j'ai une vision hein amna ci sama gis mais très souvent nous dégg non waa ji màgget la ne bàyyi jouer. ñu en tant qu'entraîneur affaire bi question de màgget la ou bien question de de de performance la wala lan. non question de performance la parce que football mm-hmm. football, day am expérience surtout que ñun ci moment fi ñuy footballé nii muy euh, la ligue professionnelle si tu n'es pas expérimenté. deug deug liñ la bëgg def lo doo ko def dama lay jox rek ben preuve. Mm-hmm. ñun suñu équipe ren bi snaps.

expérience jour il faut mu expérience pour nekk ci équipe même su fekkee ni équipe bi totalement yorul ay entre guillemets vieillard comme ni ñu koy waxee mais il faut mu am ci il faut mu am ci tamante ma defe ni sookol bi sax jour expérimenté la war a euh, mais mais mën naa ko doon dama ko dolli rek. ci li wax quoi. Ah. c'est-à-dire que fii rek li wax ne effectivement équipe bi. Hmm. jeunesse ko xaw a hmm. effectivement hmm. mais.

mais nag quand même mais da nga ko ci bàyyi xel da nga koy bàyyi mais en tant si en tant que footballeur dëgg la mais nag mais nag mais en tant que mais ki koy dàq moom xalaatu ko mais cest le problème moi en tant que nit cest que nit mooy xalaate noonu nit mooy mooy dégg nag quand on est un entraîneur mais on est obligé de de de d'avoir la tête partout hein fépp ngay fépp ngay xool fépp ngay fépp ngay dugal bopp mais tout le monde savait que l'équipe avait besoin de de de de d'expérimenter soxna yaa ko yow ci yow laa ko njëkk a dégg loolu. équipe mm-hmm. bi expérience moo ko manqué. Mm-hmm. yooyu rek il faut nga wut ko. tout à fait euh, mais xalifa Pape Gàtt bu ma fi ma koy gis école football Alioune Sow ak léegi. mais mënu fee màgget quand même. c' est ça c' est à dire jour moo tax ma ne ko mais pourquoi parce que dem gis naa ci joueur yu bëri ah hein, yoo xam ne. day damay wax gars ñi ma leen mais ñun sunu sunu sunu championnat bi quelque fois da ngay gis benn joueur boo xam ne benn saison ñaari saison trois saison lay toj.

Euh, d' abord man. dina n'as pas fait de résultat ren bu championnat bi. waaw suñ woon foofu ñu ne wàcc na non j'ai pas j'ai pas fait de résultat en mi parcours. oui mais woolu woon nañ ma pour mën ma fa bàyyi bàyyiwaat ndax. ale rek lañu ñu te mm-hmm. ale bi dama defee ni man li ma tax a sax jël position bi ma jël. Mm-hmm. ñoom responsable lañ ci. Mm-hmm. pourquoi parce que parce que ñun bi ñuy yéegee. ci jour bi ñuy yéegee di feete. entre dirigeants ñu toog di waxtaan. les joueurs dañ ñëw rencontré ñu dañ leen soxla. ñu ne lan la ñu ni suñu équipe bi bàyyi leen ñu ko dañ leen di ñaan bu leen ko changé. wàcce leen suñu équipe bii nga xam ne moo yéegal CNEPS en Ligue 1. ñu dem affronter ci gars yi. alors ñu concerté foofu ñu ne non comme loolu la nañ leen ko may. donc man. ñu may leen ko. yàlla def ñu ñëw ci biir. affaire bi dëgër. bi mu dëgëree booy manqué nañu expérience am na ci joueurs yoo xam ne. waxuma la ñëw di football ci de ba ñu poussé pousse mu calé ñu jaaxle xam nañu dañoo toog seen kër. ñëwatuñu parce que amuñu pexe. ñenn ñi da ngay da ngay da ngay entraîner war a match suba nga convoqué leen ñu toog ba gudd ñu wala téléphone. ni la suba ben, dama gaañoo non mm-hmm. amatuñ ci pexe. alors donc ñun mujj gi je te dis que on a joué des matchs yoo xam ni. Euh, quatre ou trois matchs yoo xam on a joué sans avançant mm-hmm. dañu jël milieu terrain def ko attaquant parce que attaquant ñu fi nekkoon gaañoo ñenn ñi toog na alors loolu mo indi affaire bi mais ñun en mi parcours bi ñu on s'est rendu compte que li ñu doon def baxul xalé ya ñu ko il fallait que ñu may len mais ñom ci sen bop sax xam nañ ni baxul mais il y avait un changement bo xamni dalon nañ ci ba nga xamni té tamit lepp lo ci mëna wax. man limay wax xam nga saabu du fóot boppam. man mënuma jeter des fleurs sama bop mais li ma xam. moy xam na ni man fi condition yi ma

c'était pas peur. c'était non dama lay tooñ rek dama et puis bon il faut le dire aussi hein que euh, ñun def nañu ce match yu hein. on l'a on l'a on l'a reporté en direct. et dans mes reportages je disais toujours que euh, l'équipe jouait bien. parce que loolu lañ doon mm-hmm. quelquefois on veut gagner sur des détails quoi. ça vraiment on pas seetaan nañu match Maintenant, euh, ça, il faut le dire. Une équipe, c'est une famille. Et moi, j'ai vu qu'au CNEP, c'est une famille. Parce que les gars, moi, tout le monde est engagé. Quand l'équipe dit, Mailen Mailen Loro, tout en sachant que ce n'était pas la meilleure formule, ça veut dire que c'est une famille. C'est une famille. Et ça, c'est important que nous ramener aussi euh, équipe euh, famille. Quoi. Pas vous gâter, euh, match Magna, parce que l'émission est tu as dit, mais nous, on deux minutes, de transfert. Lionel Messi dina rester euh, Koulibaly euh, euh, Manchester City waa ji président sax néna mom regretté na ci <laughs> ko a fay 80 millions muy Les léegi <laughs> léegi moom xam naa ni Wa, Manchester City dinañ yok certainement ils vont arriver à 50 milliards certainement dinañ ko dinañ ko jaay mais hmm. le problème de ces transferts Gana ñang koy Paris Saint-Germain ñang koy bëgg jaay c'est un bon choix joueur il faut que tamit ñuy xam équipe yi ñuy dem fan. Sadio Mané très important Barcelone a ngi koy jéem a lorñi. le choix du club c'est mm-hmm. extrêmement important philosophie jeu équipe bi may dem est ce que bokk na ak sama tempérament ak sama manière de jouer j'espère que pas bu gàtt daa ngeen xalaat yooyu joueurs professionnels yi nekk fii au Sénégal aussi nañu bayyi seen xel ci loolu. c'est très important bëgg équipe xam équipe la muy jouer est ce que bokk na ak yow la ngay jouer mo ëpp importance l'essentiel c'est d'être titulaire et de jouer. xam nga li ci bari mooy joueur bi day dégg prestation équipe bi mu egg à un certain niveau mu bëgg caa dem bokk pour moom yok yokk turam. Mm. alors que du adapté ci. du adapté ci façon fu philosophie fu joué mm-hmm. lolo tax bu ñuy ñëw di fay. gis nga man euh, pour pour pour le cas de Messi man je prie que Messi baña dem. Mm. xam nga lu tax. philosophie Barcelone la xam. ba pare non seulement de tuer le le football espagnol. parce que Ronaldo dem na. mom mu dem dotul am ben ki bi. Mm mais ensuite suñu Kalidou Koulibaly su ko man si si si jëndee Messi dootul wax ci Kalidou parce que xaalis ba mu am yëpp fële la koy yóbbu alors donc man je je je dama préférer Messi tok ndax Kalidou changer de club. Mm-hmm. da mën dem bu boobaa dinañ ko jënd mais suñu jëndee Messi dootu ñu mën jënd euh, ki Manchester City. Euh, mun na baax ci moom par rapport ak naaf parce que tempérament parce que. Euh, Koulibaly am na ay. boobu mooy club sax foofu mooy club am foofu mooy club am. par contre Messi. waaw Messi Messi d'ailleurs sax d'après information yi euh, pratiquement il ne parle plus hein. waaye non dematul ah mënut dem d'ailleurs ba ca bu demee ba ne ba naree yóbbu gars yi justice moom. xalaatu ko daal et puis. Messi mënul foot feneen. toog fa rek ba retraité la mën la preuve dama mos benn waaye mën na ko. mais c'est que c'est que c'est le déplacement c'est le déplacement de Ganagay. Et là nous sommes d'accord. oui man je faisais partie du. Ghana, fait un mauvais choix parce que c'est un très mauvais choix. parce que aussi da y a ñi fa mm-hmm. concurrence bi d'abord. Mm-hmm. parce que mënoo yow philosophie jeu bi Paris Saint-Germain même philosophie il philosophie bi Paris Saint-Germain ça mën na ci adapté mais ce qui est sûr et certain mooy les Verratti et les Marquinhos. ñooñu.

sa ya. sa jeune ya, frère cheikh tidiane et eh, cheikh momadou bokku turando ah yeen bokku turando ah oui très <laughs> bien ma baye la nga tagoto amon na mbekte nak do man mi amon na mbekte ñew tay ci plateau bi hmm. di di remercier ñima fi fekk ñep hmm. di remercier coach khalifa coach gojo et hmm. aussi ma lay remercier bu baax yow opportunité yi dafa baax quoi surtout joueur yi nek ci au moins ni ñu mëna am yenn expérience ak yenn vécu transcender ko ak yenen nit ñi quoi je pense que ni yow dañ parce que cette expérience de cursus vraiment tu peux apporter encore beaucoup de choses mhm. aux jeunes joueurs quoi. ok merci loolu amul benn problème Inch'Allah. allah. ñu koy jaajëfal bu baax coach Gaussou, euh, toutes mes félicitations. merci Fallou c'est-à-dire euh, am y man nag euh, message pour moi. Mhm. je crois que depuis belle lurette. je mhm. suis koy sànni gars yi et ça c'est je lance ce message là aux autorités, au niveau des des autorités parce que nous, muy CNEPS di waali daan di ASC Thiès di équipe bu mu mën a doon ci cees di football di génne fii di dem beneen dëkk di football cees lay représenté et nos autorités là ngir yàlla nañu dimbali équipe yi parce que tam ñun cees lañuy demal ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo jiite Thiès nañu def seen loxo ci équipe yi équipe yi soxla nañ ko soo gisee ñuy wax diw fay na ak diw fayul mais c'est rien d'autre gars yi dañoo yor luñ joxe bu ñu amee luñ joxe joxe ko xale yi fubal seen i doom lañu seen i jarbaat lañu mënuñu fubal feneen fu dul Thiès ñoom ñoo fi nekk pour jàppale les clubs ñaaw na ci seen der

waaw Fallou de de remercier nos nos invités vraiment content trop ci mm. et puis surtout la disponibilité bi nga xam ne moom la temps, am ci taw je yooyu remercie, ñu. Mm. bravo ko di remercier yow nos caméramans. Mm. le grand champion Bobette qui est là-bas. Ah, qui règle pratiquement le son surtout. donc euh, l'ingénieur de son. l'ingénieur de son Bobet. faut le Bobet Taï bon donc. Euh, euh, très bien di remercier ñep dal ak son caméraman Camara boobu moom bi séeréer la ko moo tax. waaw jay na ba la sa mbokk la. jay na ba jay na ba Saar seen seen ñu koy bu baax a baax euh, Modou aïssa yéen mbokku téléspectateurs yi aussi ma leen di jaajëfal bu baax ci tewlu bi ngeen ñu top tamit euh, chaque semaine ci seen émission sport prestige boobet merci di len jox euh, dig dajé semaine prochaine ci seen benen émission jàmm ak jàmm ba beneen incha allah